amoon na achat de conscience yi amoon na. ASID TV la chaîne des patriotes abonnez-vous. Ousmane Fall doon membre Pastef coordinateur Gueule Tapée Fass Colobane ñu ngi lay dalal jàmm ci seen bi di ASID TV la chaîne des patriotes. asalaamaaleykum euh, Mbaye asalaamaaleykum mbokk euh, mooy euh, auditeurs yi seetaan ASID TV. salaamaaleykum waa gël Tapée fas Colobane maa ngi nuyu sénégalais yëpp citoyen sénégalais yëpp yi nga xam ne que seen seen vote bi surtout jégale nañ ko yeewu askan bi mu def perce bu am solo ci élection municipale ak départementale yi maa ngi jaajëfal bépp citoyen bu nga xam ne sandil na ko euh, kàrtam yeewi askan wi sax rawatina sama mbokk citoyen yi nekk ci Gueule Tapée Fass Colobane maa leen di jaajëfal bu baax a baax di ñaan vraiment émission bi na nag émission bu xam ne ñëpp nañ ci am njëriñ parce que Sénégal rek moo ñu ñor. élection locale yi leen jógee gis nañ ne yéen yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk ci coalition Yewwi Askan gi bokk ci Pastef en même temps ngeen ànd ak seen candidat di Abdoul Aziz Paye ñi gisoon ne élection yi battre ngeen campagne ba mujj bi daanaka mujj ngeen jël fii nga xamante ne muy commune Fass Colobane Gueule Tapée mujj ngeen jël li nga xamante ne muy mairie bi. ñu bëggoon xam seen li nga xamante ne campagne yi naka la demee woon ndax jotoo leen ci dund ay jafe-jafe. Euh, élection bi euh, pré campagne bi ak campagne bi amuñu ci benn amuñu ci benn jafe-jafe. Hmm. amuñu ci benn jafe-jafe euh, parce que dañu def suñu planning bu nga xam ne wax dëgg yàlla teg nañ ko ci yoon. Hmm. te euh, respecté nañ li nga xam ne que mooy suñu suñu naataangoo yu nekk ci com ci commune bi mooy yenn yenn yenn yenn parti yenn adversaires yi laa mën a wax ne que mhm. euh, dañ leen respecté de telle sorte que amuñu woon problème ak kenn mhm. que saa soit bu ñu dajee que ça soit ci ay kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko jëmale si ñoom amut mhm. donc mun naa wax ne que ñun suñu campagne ça s'est très bien passé parce que ñun loolu mooy loolu loolu mooy suñu doxalin Euh, ñun on se base l'argumentaire amul ay saaga amul ay xaste waxal li nga xam ne que mooy jëmal euh, citoyen Gueule Tapée Fass Colobane euh, ci kanam mm-hmm. mais du lenn li nga xam ne que ñun loolu dinañ ko ci def li nga xam ne que dina gàllankoor mooy maanaam élection yi passé moo tax vraiment ça s'est très bien passé certes nag amuñu amuñu amuñu xaalis comme ñëpp amuñu xaalis mais yàlla def na ko vraiment que mooy lu gën ci commune bi mooy Abdoul Aziz pay mm-hmm. euh, falu na nekk maire léegi lenn rek moo des mooy maanaam liggéey pour que citoyens yi nga xam ne que ñoo nekk ci commune bi gis si seen bopp nañ xam ne que Abdoul Aziz pay fal nañ ko pas pour yeewu askan bi seulement mais pour tout citoyen de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane Mhm. jërëjëf Ousmane macha allah ñu ngi dégg sa biir kàddu ne falu ngeen macha allah ñu ngi ñaan suñu borom defal leen jàmm ndam ji mu doon seen njiglaay ngeen liggéey teg ko ci transparence parce que mhm. bu ñu xoolee transparence moo tax ñu bëgg changer li yéen waa Gueule Tapée Fass Colobane ngeen jëlee fi fi nekkoon muy Ousmane Ndoye doon membre APR léegi dañ doon jot ay information ci biir li nga xamante ne muy jour vote bi ay transfert directeur amoon na ak ay jafe-jafe ñu bëggoon nga dellu sil ñu ci wax ñu nan la demee euh, waaw ak euh, achat conscience yi nga xamante ne tamit ni nga ko doon dégg ci diggante Gueule Tapée Fass Colobane amoon na achat de conscience yi amoon na mhm. mais il y a eu euh, l'intervention de la de la police nga xam ne vraiment je salue vraiment euh, seen taxawaay ci jour élection bi euh, vraiment taxaw nañu vraiment taxaw force républicaine donc euh, force républicaine donc loolu ñu ngi leen ci sant di gërëm waa waa police ci seen taxawaay jour boobu noonu parce que am na j'ai vi des gens qui ont été arrêtés des des en fait des des nervis qui ont été arrêtés au niveau de la Gueule Tapée par la police donc gis na leen ñu groupe côté école amat Lamine Diène j'ai vu des des police la police ñu arrêté leen yóbbu leen donc maa leen di jaajëfal encore bu baax a baax a baax a baax a baax euh, par rapport ak transfert yi euh, on a ay euh, dégg nañ éco bi man dégg naa écho bi mais mënu moo wax la certitude que réellement amoon na des cas de transfert yi nga xam ne avéré man daal lu ma ci xam les gens m'ont mu me disant que am na benn bureau bu nga xam ne yaay beaucoup de nit ñaa ngi fay bëri yaay bokkut de transfert mais boo amulee li nga xam ne ku loola leer ne nit ki jàppoo en flagrant délit nga xam ne que kii dëkku fi ah wala nga am par exemple ce qui s'est passé à grand à Grand Dakar lors de lors de révision des des listes électorales waa ji indi certificat de résidence indi certificat de résidence bu nga xam ne bu mu ñëwee foofu noonu un siégeant de l'opposition fekk ne que kooku adresse bu mu indi siégeant bi seen kër la mu laaj ko est-ce que yow xam nga ma. donc yooyu ay cas yi nga xam ne que yooyu mën nga ko vérifier donc waa ji xamu ko donc ñu ne ko mais yow adresse bu nga indi nii suñ kër la donc loolu moo indi woon problème bu nga xam ne amoon fële ci euh, ci préfecture euh, euh, fële Grand Dakar mais nit nga xam ne ñëw na rang xamoo ko xamoo ko loolu ça c'était un peu compliqué ah pour pour nga leeral ne effectivement am na ay cas de transfert donc loolu moom vraiment c'est lu ñu ñaawlu la encore une fois ci bi nga xam ne que ñu koy faral di def nañu bàyyi les citoyens de la commune décider de leur sort parce que indi keneen ku nga xam ne dëkku fi mu voté maire bu nga xam ne que moom xamul ban taxawaay la war a def ci askanam loolu vraiment ñu ngi koy ñaawlu te rafetlu rafetlu ñu loolu daal loolu daal laa xam ne que loolu am information yooyu amoon naa ci loolu amoon naa ci achat de conscience moom c'était amoon na euh, amoon na peut-être ak yenn yenn yi nga xam ne que gars yi war nañ ko bàyyi di si def parfois mooy euh, boo amalee information bu la wóorul te leeru la vraiment éviter tamit di ko di ko di ko divulguer daal man loolu daal laa amoon lu may ci wax ci hmm. loolu. achat de conscience boobu noonu si ban fan ngeen ko gën a nemmeeku noonu euh, diggante centre de vélo de botte yi nekkoon fii euh, si Colobane wala Gueule Tapée wala Fass. non amoon na Colobane amoon na Colobane. Hmm. amoon na Gueule Tapée amoon na Fass. Hmm. amoon na Fass c'est-à-dire loolu moom ay nit ñi yëkkati xaalis di joxe. Mhm. et là moom vraiment cest à loolu ñu ngi koy ñaawlu quoi c'est-à-dire nañu bàyyi euh, nañu bàyyi citoyen bu nga xam ne que mooy son devoir mu def ko. Mhm. mooy tànn ko ko nekk nga xam ne yaakaar na ne dina indi ay ay ay ay ay changement ci commune am dina am indi ay doxalin yu bees ci commune parce que Gueule Tapée Fass Colobane nag franchement parler dañu nekk ci ci ci ci ci li nga xam ne que. Euh, war na am rupture totale par rapport à la gestion de la commune totale laa wax rupture totale mhm. amul amul amul amul amul demi-mesure par rapport à la à la à gestion. Mhm. donc euh, ci côté boobu damay profité di wax ne que man euh, ce que je vais demander au au au au nouveau maire à à Abdoul Aziz Paye c'est na def audit par rapport à la gestion bu nga xam ne que ñi fi jóge ñi fi jóge yoroon nañ ko parce que audit bi bu amulee yow doo xam ban façon taxawaay nga war a def. Mhm. damay faral di jox exemple ne. Euh, euh, taximaan bu nga xam ne jox na euh, si si si sirumaan si sirukat bi bu wàccee xanaa bu bu dawalee otoom guddi bi ba si suba si avant waa ji borom oto bi di ñëw. xanaa dina ko ne essence dina vérifier essence. te dégg nañ fi nga xamante ne muy Fass Kolo Gueule Tapée Fass Colobane mairie bi ki fa nekk Ousmane Ndoye dégg nañ fa ay mbirum lu jëm si lu ba lu bëri mauvaise gestion bu yaatu boo xamante ne dégg nañ ko foofu kon audit boobu nga wax noonu est-ce que doon obligation si ki nga xamante ne le nouveau maire. en fait pour man man man man man de dina naan loolu obligation la war a doon. pour duma ne pour Abdoul Aziz Paye mais pour tout nouveau maire laa mën a wax ne dans tout le Sénégal les nouveaux maires di nga xam ne waa Yewwi Askan Wi surtout noonu lay waxal mhm. nañu auditer nañu auditer mooy gestion bu nga xam ne bu fa jóge mhm. parce que mhm. bu ko defulee bu ko defulee bu ko defulee mooy maanaam moom lui-même il aura de sérieux problèmes après à s'expliquer devant la population devant les citoyens ne leen lan laa fi fekk ak fan laa war a jëlee comme fan laa war yóbbu commune bi. Mhm. loolu dafa am solo gestion euh, mbay. Mhm. Euh, et là je demande franchement parler que que que les nouveaux maires ñu def audit pour xam ñi nga xam ne ñu fa nekkoon lan lañ yore woon commune yooyu noonu. Mhm. ban façon gestion lañ ko yore woon xaalis bi fan la doon dugg fan la warta dugg est fu mu doon dugg jaar na yoon wala jaarul yoon marché yi nga xam ne daan nañ ko joxe ndax jaar na yoon wala jaarul yoon yooyu yëpp boo ko defee yow di mën am. di nga mën a am di nga am toogaay bu rafet bu nga xam ne gestion bu nga xam ne war na ci commune bi li nga wax ne moom lu commune bi war a def. Hmm. population bi war a gis sa gestion. Hmm. je pense que bu transparence bu ci war boo ko ci defee. Hmm. je pense lu mel ni Gueule Tapée Fass Colobane yomb na liggéey. bon yow nekkoon nga ki nga xamante ne directeur de campagne yu euh, Abdoul Aziz Paye tey nii nga ndëkk nga bokk ci parti bi nga xamante ne muy Pastef. nga doon coordinateur bi Gueule Tapée Fass Colobane en même temps nga nekkoon tamit li nga xamante ne muy directeur de campagne am yow léegi ban taxawaay nga fas yéene ànd ak ki nga xamante ne muy Abdoul Aziz Paye ak tamit lan ngay xaar si moom. Euh, waaw euh, man euh, dans un premier temps damay leeral ne que man déjà nekkuma ci liste yi pour que ñi nga xam ne nekk ay premier adjoint au maire yooyu noonu pour woon ne que l'ensemble des citoyens sénégalais l'ensemble des citoyens de la Gueule Tapée Fass Colobane que ñun lu ñuy woote mooy don de soi don de soi dafa am. Ah, kon yow nekkoon ci liste bi. man nekkuma ci liste bi. Hmm. donc ñàkk nekk ci liste bi teewul ne man maa nekkoon directeur campagne Abdou Aziz Paye Abdou Aziz Paye ñàkkul ne teewul ne que muyee naa sama moyen bu baax a baax a baax comme lu sama leader Ousmane Sonko ñaanee pour ma def ko. Hmm. ne ma da nga fexeel bi Abdou Aziz Paye Abdou Aziz Paye falu donc. nekkuma ci liste bi euh, sama objectif nekkul ne forcement dañ ma war a jox ndàmpaay parce que dama muye la ma déedéet man dama gëm maire ku fa nar a nekk da war a compétent da nga war a compétent donc compétence lañu privilégié avant tout. kon yow li ma bu ma déggee sa biir kàddu mooy li ngay xaar ci Abdou Aziz Paye mooy compétence bu deful lu jaadu yow kon taxaw nga pour dal ci kawam. non euh, en tout cas daal man euh, lu ma ci ñor mooy au niveau de la commune de Gueule Tapée Fass Colobane mooy na population bi gis seen bopp ak comme munta doon ak kum munta doon laa wax. Mhm. gestion bi lu ñu fi jëlee Ousmane. mais Ousmane comme tu es indépendant yow kon taxaw nga bu boobaa moom bu deful lu jaadu nga ne ko li nga def jaadu. dal mais bu baax a baax a baax a baax je duma je je serai le premier même je je serai le premier même à l'attaquer. Mhm. cest à boobu il faut mu leer je serai le premier même à l'attaquer bu defulee lu ci war ci gestion bu ci war je serai le premier te yaakaar naa lu ma dégloo ci programme lu mu wax. ak lu mu nar a def. Mhm. vie moom profession bu nga xam ne moom parce que juriste la fiscalité la def donc yaakaar naa ne moom war na yor commune bi yor yorin bu rafet. Mhm. mais bu ko defalee tamit ñun fu ñu nekkoon ñu nga fa ba tey on sera parce que Macky Sall mi nga xam ne tëwuñu lu 3 mars yaakaar naa du ab benn maire moo ñu nar a tax ci loolu. Mhm. te régler ko mooy gën a yomb parce que xam nañu depuis 2014 ba léegi maa ngi saytu. gestion commune Gueule Tapée Fass Colobane naka lay demee. Mhm. moo tax mu demandé audit bi il faut que Abdoul Aziz Paye def ko. parce mhm. audit bi bu ko defulee. Mhm. bu ko defulee ça va remettre en cause même sa gestion. te loolu du lool doon lu baax. dina am lu muy gàkkal si gestion am kay ci lu bëri bari lu bëri bëri bëri bëri bëri donc lu ma koy ñaan mooy na def transparence bu jógee ci audit bi. lépp lu muy def na na doon de transparent mhm. li nga xam ne information yi daaw ñeneen nii population Gueule Tapée Fass Colobane daaw ñu ko yëg na fexe ba ñu yëg ko ba ñu gis seen bopp te yaakaar naa programme bu mu tëral boobu dafay jóge moom dafa programme dafay jóge ci population bi problème bi day jóge ci population bi jëm ci kaw jëm ci moom lépp lu ñuy décider moom maanaam moom loolu la nar def mais yow comme li ngay wax ni yëpp sànq ba léegi est-ce que tamit jarul woon moom bu la woo woon ngeen ñëw liggéey ci mairie bi nga nekk secrétaire municipal am nga ñëw nekk ci wetam bokk ci secrétaire municipal euh, mairie Fass euh, Gueule Tapée Fass Colobane li ngay wax ni yëpp est-ce que tey bu la woo woon nga dem ci wetam est-ce que du jar nga dem ci wetam pour dimbali ko ci loolu. Euh, en en mbay man je suis pas le plus intelligent certes je suis pas certes un coordonnateur de PASTEF. Euh, candidat candidat kandidaa euh, bu nga xam ne que bëggoon na tamit nekk au niveau de la mairie. Mhm. Euh, moom moom mu nga xam ne que xam na ñan façon ñoo ko war a wër pour mu liggéey man choix boobu noonu moom moo xam. waaye mais bu la woowoon di nga dem. bu ma wooyee ma selon les conditions yi nga xam ne dina du ñàkk mu am conditions yi nga xam ne man dinaa ko si teg parce que man tamit du ma ma nit du ma nii pour nga dem liggéey pour nga dem ci liggéey ci moom damay am ay conditions yu may teg. Mhm. du condition xaalis du dara mais condition de transparence et de démocratie surtout mm-hmm. et de rigueur dans le travail mm-hmm. boobu laay prôné lu Ousmane Sonko di woote moom laay woote parce que nee naa sax te je vais le dire aujourd'hui il de a des agents municipaux actuels yi nga xam ne ñu am ay kër loolu gis nañ ko fii fii Gueule Tapée Fass am na ñoo xamante ne ñi ngi nekk si mairie foofu am ay kër fii am ay immeuble te ñi nga xam ne lu Ousmane Sonko wax bu mu demee fële corniche wa mm-hmm. bu mu nee bés bu ma jëlee réew mi ñi nga xam ne tabax nañ seen kër ci corniche yi yëpp boobaa dañ koy nangu parce que moomuñu al alal askan bi ñoo ko moom. Mhm. man je ferai la même chose. Mhm. loolu moom dëgg la moom. parce que Fass Colobane Gueule Tapée mhm. Colobane gis nañ fi ay ay ay ay agent municipal yoo xam ne am nañ am nañu fi ay immeuble di ko loué. ñooñu nag. bu dee leer na bu dee am na. mais audit boobu est-ce que du jar nga wax Abdoul Aziz Paye mu taxaw si. auditer leen ñoom mais dafay leer. nee naa lépp moo tax ñu war parce que lépp li nga xam ne que dañuy wax dëgg nañu mais il faut que audit bi wone ko. Mm-hmm. est-ce que réellement lii am na ñii dañoo luubal xaalis mm-hmm. te am na fu ñu ko jëmale jëmale nañ ko dugal ko seen poche mm-hmm. bu dee loolu am na bu dee loolu am na leer na man yaakaar naa ne moom d'abord loolu mooy li nga xam ne lu njëkk xëy na lu may def bu dee yooyu de ànd na pour audit bi am ñi nga xam ne jël nañu alal citoyens yi dëkk ci Gueule Tapée Fass Colobane ñu delloo ko ci askan bi ndax askan bi gis seen bopp parce que fii actuellement dafa doy waar booy da ngay gis booy yi nekk ci banditisme booy yi nga xam ne xamuñu fu ñuy dugg tey tey tey tey tey tey xale yooyu noonu lycée bu mel nii de la fosse bu nga xam ne am na capacité de formation de d'accueillir même de plus de mille élèves. Mm-hmm. ku jàng ak ku jàngut. Mm-hmm. man pour man commune bu gën a defee Fass Colobane. Mm-hmm. buñ ko tegee ci tegin bu jaaru yoon fii sax warul ñax nga doo gis xale bu nga xam ne amu fi métier du fi am. absolument waaw donc moo tax. ci côté boobu moom wax dëgg dëgg dëgg yàlla ñi nga xam ne que yore nañu xaalis euh, euh, par exemple bu ma joxee lycée de la Fosse euh, kii bi le maire le maire sortant yore na leen am na CNCP yore na leen xaalis ay xaalis ci ay formation yi nga xam ne que ci xale yi xale xale yi xale yi ñoo ci waroon xale yi ñoo ci war a bénéficier wu. Mm-hmm. te am na rubrique bu nga xam ne c'est pour la formation. Mm-hmm. mais ñun gisuñu si man fa laa nekk nee naa depuis 2014 bi lañ maa ngi saytu ci. gestion commune bi. Mhm. mais doo fa dem rubrique ba nga gis si ne mairie bi. Mhm. def na ci jéego ci formation professionnelle au niveau de la commune. Mhm. te pourtant yaa ngi am li nga xam ne amul benn commune amu ko fii Sénégal. fii damay faral di wax mun nga fi jàng benn magistrat te doo mos a jël oto ci commune Gueule Tapée Fass Colobane rek la am. parce que boo fi jàngee lycée yu gën a mag yaa ngi fi lycée technique mu gën a mag mu ngi fi université mu ngi fi ENA mu ngi fi tout à côté de nous donc fii mun nga fi jàng ba nekk un haut cadre dans l' administration te doo jël oto te doo mës jël oto donc lenn lan lan moo des favoriser yombalal nit ki defal suivi les les élèves les étudiants. Mm-hmm. de telle sorte que euh, du ñu am benn problème xale yi jàng parents d'élèves yi euh, Aziz a un très bon programme du ma ko du ma ko il a un très bon programme je pense que programme bu ko mettre à l'œuvre euh, les les gens ne vont pas regretter de l'avoir voté mais encore une fois audit bi moom il faut que impérativement mu def ko. Mhm. parce que gestion bi bu ñu dégg il faut ñu am lu ci leer. am na walla amul. Mhm. il faut ñu leeral ñu si loolu. ASID TV la chaîne des patriotes abonnez-vous.